mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen sit bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تكي بارون توبا نيوغي زيارة نيب تدي نيو مبوكي يب دي دوكيال تي داجة بيغا خمني نيوغ كي أمال التاي بسوب تاي بي دي دون دون داجة بو بو أم صلى الله تي يون دان ويسو مملني تاي جي مو دون 4e édition maanaam amalewoon nañ ko ñett yu weesu bu njëkk ba ñi ngi ko amele woon fii ba ca topp fii lañ ko amee woon ba ca toppaat ak biit naka noonu yépp nag sabab su njëkk si moo nekkoon mbooloo mi doon ñoo xam ni dañuy xamante siq ab lépp ak mbokk ak mbokk di di di di boole ñu ñu bokk ko te séq lépp di demlante di dikkalante doon ak ba pare amuk nosu goo xam ne luñ bëgg a def dañ koy daal di def ci ci ci ndax euh, euh, ci lu yomb daal ndax mbooloo mooy doole te ay ay mbokk nag bu ñu àndee ngir luñ bëgg a luñ yëkkati rek mu mu woyof ca ñoom dañuy fexe ba booloo di xàccandoo di dóorandoo te loolu lu koy waral mooy ab xamante akub déggoo ak ak ak lépp daal loo xam ne day ñoŋal ab diggante mu mel ni nag programme wu ren bii am na tuuti ak coppte ndax bu njëkk ba booba li ko li ko booba dañoo dañoo doon dajoo rek ngir xamante ndax booba sos nañ groupe bi te ñu bari ci ñun xamante wuñ woon daanañ diggante waaye gisantewuñ wuñ booba nag ñu dajee woon fa lañ fa lañ sosee réunion bureau bi ak yu demee ni yooyu ñaareel ba ñu woowoon sëriñ Ahmadou Ndiaye ngiraan mu defal ñu ay waxtaan ci Cheikh Mouhamadou Moustapha sunu maam ju baax joojee di jàmbaar di gar ñetteel ba ñu ni woon nañ tànn kenn ci ñun koo xam ne ku am xam-xam lay doon te xam li muy wax ca ca noonu lañ déggoo woon jëloon Abdou Khadir Ba AKB Majalis mu defoon fi waxtaan wu am solo ci njariñ li xam-xam am tey jii di ñetteel di ñeenteel bi ñu ni nag ba mbooloo mi nag bañ ko soseeg léegi nag xanaa war naa toll ci ñett ba ñeenti nawet te lépp loo xam ne am na ñett ba ñeenti nawet nag daanaka day daal di dëgër kon fi mu ne nii yoon la ñu defaat ab bilan ci li ñu def ak ci li ci loo xam ne weesu nañ ko ak ci li ñu jëm ak ci lépp loo xam ne war nañ ko def lépp lu ci sooxe itam ñu ñu ñu xool nuñ ko doxale lolu dal muy yitte moy moy moy programme tay bi ci nonu li ñuy njëkkee mooy dañuy dañuy bari yi ak waxtu rek jox Serigne Cheikh sirin Makhtar mu Serigne Abdourahman mu Serigne mbacke Madina mu Cheikh mohammedul mustafa mu defal ñu mu ajaraal ñu ñi nga xamni ñofi nek ñepp ku ci ne nak bëgg nañ buñ tuddé sawtur nga daal di nga daal di taxaw ñu xàmmee yow akan loolu nag ab jaayante dong la ñun ñëpp ku ci ne war na koo man nañ ko jéem rek fii ñun ñëpp ñoo bokk lépp te ki ñu fi tax ñu bo bo boole ñu fi te ki ñu fi indi mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha kon ajiwut kenn di nëbbatu fii nag dëgg la nag ah, kersa mënut a ñàkk waaye nañ ko jéem a doxalee noonu rek ndax lépp lu lu jëmale kanam yëf la rek ñoo ngi leen koy dagaan yéen ñëpp yéen ñëpp nag buñ paré ci lola buñ paré ci lola nak dañuy jox nit ñi gi nga xamné bom lañ falon ci première édition ba muri muri Cheikh Ahmadou Mbacké feggoog man ni feggoog man ni ñu war ko jox kaddu gi mom mu fasiyene jey def ay ay waxtaan yo xam mara da koy def ngir soññewaat ci ci groupe bi wax itam groupe bi fim tollu fam fam tollon ak fim yegg ak fañ bëgg mu yegg fa ak objectif yi ñu am ak lan mooy gàllankoor yi tax yëggut fa mu war a yegg boobaak léegi dox ba yeex comme ni ko ñu bari di waxee loolu lépp suñu ma dana ci indi ay leeral yu leer nañ bu bu loolu weesoo danañ jox kenn ci soxna yi mu joxe ay kàddu yoo xam ne ay kàddu soññee lay doon ci ñëpp ndax kom kom yëf yi ñoo ko bokk ñu ñëpp te am na góor ami jigéen fu góor ñi jëlee kàddu soxna yi war nañoo mën a jël seen kàddu ñu am seen wàll ñoom it gannaaw ba loolu weesoo itam dinañ jëlaat kaddu gi joxaat ko waa finance ñu leeral ñu xaalis bi nga xam ni doon ngeen ko joxe wala ñun ñëpp ku ci ne joxe nañ ci sab dërëm ñu xam fu ñu ko jëme ngi am na lu leen dencal loo xam ne li feeg booloo wuñu duñ ko jot te mbooloo mi boole njaboot gi moo ko tax a jóg kon nag li nga xam ne sunu maam yi Cheikh Mamadou Moustapha dencal nañu ko bu fekkee dëgg dëgg dëgg dëgg bëgg nañ caa jot nañ fexe ba booloo waaw nañ fexe ba booloo buñ ci bëggut a jot nag moom waaw xam nañ yoon ñuy jaar waaye nañ ca jéem a jot waaw ah, nañ ci jéem a fexe booloo fexe ba xam ne lii daal defar doon tax a jóg waaw fexe ba xam ne bu doxee maanaam ñun ñëpp ñoo ci ñoo ci war a def ay jéego ba mu dox waaw xam naa foofu la ñuy euh, tënkee kàddu yi di jégalu bu baax a baax a baax sunu kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi eh, di wax in uridu illa al islaaha ma stataatum wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa lool ci téere boobu muy wax te téere boobu bu am solo boo xam ni mënees naa wax ni bu bu bu noppee bu soobee yàlla ku ci ne dana xam lu tax ñu ciy sonn ndax dana mat lool te bëgg nañ da fas nañ yéene mu doon téere boo xam ne day matale loolu ñaan alkaamil alkaamil lay doon bu soobee sunu borom nga xam ni euh, képp koo xam ni rek maanaam jamono doxatina fii ak ay ay ay ay kanam wala ay décennies ba ñu bëgg am lenn luñ bëgg defaat ci dunduk Cheikh Mahmoud Moustapha gi buñ dem buñ delloo ca ca boobale téere rek bu soobee yàlla danañ danañ ca gis lu leen doy lool ci Cheikh Mahmoud moo tax ñëw nañ ci soññaat di leen ci gën a xërtal bu baax képp koo xam ne am na ci xam-xam am na xam moo xam nga dégg lakku làkku arab wala wala wala français wala wala wala wala wala wala wolof bu ci doon ci yooye dañ la aajowoo ak koo xam ne am na am xel mu rafet akub xam-xam ñooñu ñëpp dañ leen aajowoo. kutulaa noo ngi nuyu ñëpp te di leen ziar eh, di tuub bu baax a baax nag ci kàddu yu ñu yëkkati ci kanamu kilifa yi xam na dañu bëggoon def commentaire bu ndaw rek ci li si ñaax ma doon wax léegi eh, tënkaat ay point ay point yu ndaw rek gën koo gën koo leeral xam naa ci bi ñuy njëkk ñëw mooy téere boobu mu doon tudd eh, ci bi ñuy njëkk ñëw mooy mu doon tudd nga xam ne ñu ngi ko doon bind ci ci Cheikh Moustapha léegi xam naa ci bi ñuy njëkk ñëw mooy téere boobu mu wax léegi ci ñu ko doon bind ci Cheikh Moustapha mel na li ci ndigalu suñu axma lañ ko tàmbale woon bañ ko tàmbale itam yaakaar naa yàgg na ndax war naa gën gaa tuddi war naa mat ñaari at boobu ba tey ñu ngi ci di ci def ay gëstoog yu deme noonu xam naa bokk na ci li ko gën a yeexal muy équipe bi ci bi ci nekkoon dañ cee xaw a néew doole ndax daanaka bëri wuñu woon ay ñoom suñu taaxi di ñoo ci nekkoon ay ñoom maam Thierno yooyu daanaka bëri woon léegi kon xam naa mbooloo mi dañ leen ci kii rek képp koo xam ni léegi xam naa kon mbooloo mi dañ leen ci tàllal loxo rek képp koo xam ne mën nga cee jàpp ci lu jëm ci téere boobu moo xam ci wàllu arab bi la wala ci wàllu français bi wala ci wàllu wolof bi nga dimbaliñu ci rek incha allah ndax dafa mel ni équipe bi nga xam ne ñoo ci nekkoon doon ci doon ci jëm liggéey dañ ci xaw a néew doole loolu ci déplacement yi ñuy def nga xam ne léeg-léeg dañuy war a jóge fii dem fu sore sori daanaka ñu bare bare duñ jàppandi moo tax xam naa daal mbooloo mi képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi dégg suñu kàddu rek te mën a jàpp ci téere boobu ak noo ci mën a jàppee rek moo xam ci gëstu yi la moo xam ci bind mi la moo xam ci traduction bi nu mu mën a doon rek eh, noo ngi lay tàllatal wax incha allah boo ñu boo ñu message rek dinañu xool nu ñu leen ci boole bu soobee yàlla ah, beneen point bi may ñëwaat tuuti rek mooy ci cotisation yi mu doon wax nii ndax ah, mel na ni ñu doon def communication beeg ñun ñi nga xam ne ñoo yoroon finance bi ah, xaw nañ cee sonn loolu lay léeg soññee bi da daan métti lool léeg-léeg sax am ñu la ci mere <laughs> te it bu ñu xoolee mel na ni seetlu bi ñu gën a def mooy ñu cotisé woon daaw sax daanaka ñu ci bari dañ ci cotisé kii bi dafa wàcc bu baax a baax nga xam ni bu fekkoon xaalisu daaw bi desutoon daanaka ren jii moom liñ joxe liñ jot a daje daañu duñ ci mën a def dara yàlla daa dogal daaw dafa desoon 200 nangam bi moo tax moo tax ñu mujjee kii bi mujjee demee nii waaye bu fekkoon daaw dara desu ci woon daanaka li ñu jot a dajale ren ji moom mënul dara ndax ñu ci baree bari eh, yàlla xam doy na léeg-léeg da ngay soññee ba sonn daa mel sëñ bi yoroon démission yi doon na ko wax léeg-léeg da ngay da ngay jël lu leen message 5 ñoo lay ñi des ñëpp dañu ignoré bàyyi noonu kon nag <laughs> ñu gën cee góorgóorlu da gën ko bàyyi xel eh, si nga mi wax na ko léegi maanaam cotisation yi ren ji mun bari nañu ma ko wax léeg-léeg da nga koy soññ kenn mu naan la ñëwuma kon kon jërul may teg te fi mu ni kii bi li ndaje mi taxu koo jug dañoo am yeneen objectif yoo xam ni daayira da ko ko bëgg a taxawee ndaje ñu ciy def nii dafa mënta ñàkk rek waaye loolu jë dox daju cotisation yi am na yeneen yoo xam ne moo ñuy xaar te fi jotoon a desal daaw tuuti muy 200 nangam mille ten di yaakaar naa bu desee tamit moom <laughs> kéewan lay doon xam bi dina def bilan bu soobee yàlla bi ci des tamit mooy eh, gën a leeral maanaam ñu gën a farlu ci liggéey bi lu mel ni suñu àllaa ji mii ni ñu ciy sonnee di nekk ci groupe bi di tooñ gaay yooyu maanaam nekkul ne dañoo ñàkk fay wala dañoo am jot déedéet maanaam dañoo dañoo dañoo bëgg nit ñi gën a gën a farlu ci mbir mi gën ko bàyyi xel rek waaye du loolu kon euh, loolu nañ leen ci jéem a topp na maanaam gën di sacrifier suñu suñu temps ak kii ci ci ci liggéey bi saa yu ñu ko mënee ak itam suñu Ahmad tudd na ko léegi muy ndaje mi ñuy def nii ak euh, groupe bi ñu tijj nii maanaam nekkul ni moo tax a jug daayira bi ndax euh, suñu suñu activité romb na loolu waaye xam nga am mbooloo bala ñoo mën a defee ne faaw dañu dañuy booloo maanaam ñëpp taxaw ngir liggéey waaye fi mu ne daanaka daayira bi bari nañ waaye yaakaar naa bu ñu ci woon tuuti rek moom yaakaar naa tas lay gën a jege ci kii kon kon xam naa ñi ci actif ñu néew néew la daanaka boo ci génne woon lim bu tuuti rek ñi ci des moom daanaka maa ngi a gën a farlu xam ni maanaam ay daje ci groupe fii di waxtaan yooyu taxu ñoo jug dañoo am yeneen ni mën nañ ko liggéeyal suñu Modou Moustapha te loolu nag bala moo am faaw mbooloo mi ñëpp nangoo sacrifier seen lépp pour pour pour ñu mën a def loolu ndax bu ci loolu amul rek daanaka yu bëree bëri ñu bëgg def du mën a jàppandi te it comme si nga xam ne tudd na ko léegi nii lu jëm ci wàllum njàngale mi xam naa tàmbali woon nañ ko ubbi woon nañ groupe bi eh, am ñu jotoon a dugg waaye xam naa foofu tamit am na lu ma ci jot a seetlu eh, ca tàmbali ba daa mel ni gaa yi xawoon nañoo farlu waaye gis naa yu mujj yi moom daanaka léeg-léeg boo dugalee kii bi tamit ñu koy déglu du bari xam naa ñu jotoon dugg kon ñu gën cee farlu <laughs> waaw xam naa daal kéemaan la daanaka da ngay dugal dangay ngay dugal ma kii bi ba noppi bind bi waaye leçon bi boo ko dugalee moom daanaka bu ko ñaar ak ñetti liire moom <laughs> ñu des yaakaar na dañu bàyyi nel mu sedd ñu gën cee farlu incha allah. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ bi Mbacke ñu lay nuyu bu baax a baax a baax la ziyaare di tàmbalee ci nuyoo bi rek ci ak jéggalu jéggalu ci déplacement bi ndax wax dëgg yàlla mbooloo bi moom daanaka say sët rek a fi nekk kon bu yàlla dogalee ba nga euh, déplacé wu ngir ñëw mën a saafonteek ñoom rek euh, xëy na xaw a ñàkk pexe rek waaye diis na ci ñun lool rek di jéggalu ci kàddu yi nga xam ne moom la ñuy yëkkati ci sa kanam waaye dafa fekk mu doon loo xam ne euh, dañu koo sas ngir ñu mën a jàllale kàddu yooyu kàddu yi nag lu lu duy kàddu yi sant rek ndax yaakaar naa mbooloo mi li ko sos ci sa ndigal la bàyyi ko ndax ñetti at ci ginnaaw wala ñeenti at egsi woon nañ ci kër ga na ngeen fexe ba bañ koo yemale ci sëtaat yi rek na ngeen ko tuddee sët rek bu ko defee mu mën a yaatu loolu yaakaar naa sëñ Saaliw mii misaal la ci ndax bu ñu ko tuddee woon sëtaat yaakaar naa kon du bokk ci mbooloo mi te tey mi ngi nii dara euh, bokk ci waaw bokk ci euh, li nga xam ne waxoon nga ñu koyit muy na ngeen fexe ba képp ku ko war a yëg ci mbokk yi mu yëg ko moo xam góor la wala jigéen mag wala ndaw ci tànk yooyu nag ba léegi ci lañ nekk di ci def suñu kem kàttan donte nag xëy na doxin wi xaw naa yeex waaye comme ni ñu waxoon rek dañ fay mujj ci jamono jee doxin wi mën naa yeex waaye na ngeen fexé ba lo leen di romb rek mo doon lu kon euh xeyna dañuy rafet njort rek ci kàddu yoy nga xamne ne nga ñuko di rafet njort ci ne doxin warna mëna yeex waye danañ romb rek dana mëna a jàppandi bu baax dana mëna don doon lu di sakkuat ay ñaan bu baax baax rek xeyna dañ koy xewu teunk ko defé num gëna gën rek di sakkuat ay ñaan bu baax ak ay soñé bu euh dana mën a nekk bu ko defee mbooloo mi yëpp mën koo dégg waaw di xam ne di la xamal ne wax dëgg yàlla am nañ ci yéene lool waaw am nañ ci yéene lool donte nag jafe na jafe na lool waaye am nañ ci am nañ am nañ ci yéene bu ñu sañoon wax dëgg yàlla njabootu Cheikh Moustapha gi ñu ci mën a xamante rek mën a miinante di demlante ak dikkalante euh, bu bàyyi bana ma mën a bàyyi ko ci daayira wala mën a tàmbalee ci daayira bi rek incha allah danañ ci def suñu kem kàttan waaw tey di euh, sàkkuwaat ñaanit ci ne maanaam doxinu liggéey bi yemut fii rek xëy na dañoo doon ay ndaw tolloog lii rek waaye bu ñu sañoon dana romb lii xëy na am na téere boo xam ne ñu ngi ko doon waajal bind ba waxoon nañ la ko am na njàngaleem xam-xam boo xam ne amoon na ci nga xam ne ñett ci groupe bi wala ñeent ñu ngi koy amal di jàngale diine bëgg nañ ko yaatale ci xam-xamu àdduna nga xam yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne euh, xëy na incha allah bu ñu demee ba jëmmi jamono rek dana euh, danañ ko gën a mën a leeral waaw waaye di sàkku ñaan rek di tënk foofu suñuy kàddu di jégalu bu baax ci euh, wax yu xaw a jaxasoo yi xëy na dañoo xaw bett ba xamuñ nuñ koy nuñ koy nuñ koy tegalee rek waaye ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax a baax Mbacké wax na ne jëkku la dajee ak yéen tey fii ci gannaaw daaw ak daaw jéeg daje naa ak yéen ba muy dajee ak wax dëgg gisul woon ngeen lim bi toll nii mu ne kon loolu mi ngi tegtale ne liggéey bii di yëngu bi mi ngi jëm kanam mu ne activité yi muy seeni yi ngeen di yëngutu mi ngi ci doon waxtaan seen jëwriñ yi booba xay na ñëpp ci yéen jotaguñ ci xam na ne yéen ñu ci bari fa tabarakallahu yéen a ngi jàng moo tax xam na ne moo tax ngeen ñàkk jotug leneen macha allah mu ne waaye gannaaw yéen a ngi daje ndaje yu mel nii saa ne di waxtaan di xamante di sottante ay xalaat neena looli loolu yi lu ama ama am solo la ndax loolu mooy dëgëral seenub ànd te xam ngeen ne moo seenub ànd mënta ñàkk ànd la boo xam ne bu ama am njariñ la mu ne ab ànd nag fa ngeen jëm foofee la ànd ba aju bu dee ànd boo xam ne dafa jëm ci lu baax loolu daal moo ko gënal bu doon safaan wal xiyaasu billaay safaan lay doon waaye yéen seen ànd bi mooy bi ko gënal nee na mi ngi leen di ñaanal sun borom dimbali leen ba ngeen man koo wéyal gën koo dëgëral mu ngi sun borom ci darajey Cheikh Moustapha al Karim seen maam ji tedd ja ak yàlla gën leen a dimbale gën leen a dëgëral ci ngeen gën a juboo gën a ànd gën a dëppoo nee na daal xolam sedd na ci bu baax a baax a baax ginnaaw defe ngeen ko nii daal yéen a ngi dalal xelam di wax dëgg yàlla macha allah wax dëgg yàlla mi ngi leen di puukare woo mi ngi leen di béggee moom daal na ngeen seere ne su ngeen ko gisee su ngeen ko gisut mi ngi ci di leen ñaanal suñu borom dëgëral seen i taxawaay yàlla sun borom may leen ngeen gudd ay fan wér ay yaram yàgg lool ba mën a réaliser ci diine ji seen sasu maam wii kane woon zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu ngeen man caa liggéey lu am solo nee na kon mi ngi leen di sant baax jërë geen jëf mel ne seen wayjur yi soññ na leen ca leen seen maam soññoon wa hab lana zurriyatan tuddiimu al amala saaliha yaa qadiimu laa tastaxilu an il huda wa bil ulumi istaxilu jërë ngeen jëf. mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm.